jër ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu sant leen gërëm leen ci waxtu wi nga xamante ni yéen ngi janoo ak ñun ci seen émission Pôlu santé daana gën a doon yitte ñu ñëw ak yéen di waxtaan ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram waaye ni ki tey nag dafa gën a yokk ndax tolluwaay bi moo ko laaj moo tax mbokk yi ci numéro Pôlu santé bi nga xamante ni ñu ngi ci mois d'août dinañ ci fas yéene janoo ak yéen waaye janoo boo xamante ni ñi ñu fas yéene dalal dinañ ko mate fas yéene ko waxtaane waaye yéen askan wi nga xamante ni mënta ñàkk ñu séddoog yéen kàddu yi ndaxte am na ci pàcc bu rëy boo xamante ni dañ leen koy jagleel. Covid 19 la ñu fas yéene waxtaane waaye ci lan ak ban tolluwaay lañu ñu fas yéene waxtaane ci Covid 19 mbokk yi loolu. bokk na ci jataay boo xamante ni kiñ ci fa yéene dalal dañ koy daal di gëstuwaat dem seeti ko lan la fan la jaar naam kàngam la ci wàllu médecine ndaxte docteur la ci waaye tamit ay jaar-jaaram ci pàcc yu ci baree bari mbokk yi loolu lañ leen di fas yéene nuyoo bàyyi ak suñu benn naataangoo mu defal ñu gëstu ci moom bu ko defee ñu xool nag moom bu duggsee yaatal bi ñu fas yéene ànd ak ci atum 2005 mu am doctorat ci wàllu médecine ci atum 2006 diplômé interuniversitaire ku yor lépp lu jëm ci wàllum prise en charge lu ñeel wàllum euh, patient infecté yi nga xamante ne nii lu ñeel wàllum VIH euh, ci Afrique subsaharienne Burkina Faso 2007 mu am certificat d'études spécialisées ci wàllum bactériologie waaye itamit virologie 2008 mu am diplôme universitaire lu ñeel wàllum cours international lu jëm ci wàllum infection VIH ak itam IST maanaam infection sexuellement transmissible ci réew yi nga xamante ni nii seen loxo jotul seen gannaaw 2009 mu am certificat d'études spéciales ci wàllu maladie infectieuse et tropicale 2011 mu am diplômé d'université méthode et pratique en épidémiologie université bu Bordeaux Ségolène ci wàllum fonction universitaire ak hospitalière nag 2005 ba 2008 mu nekkoon interne des hôpitaux bu Ndakaaru 2009 ba 2012 nekk chef clinique assistant faculté bu médecine pharmacie 4 août 2012 mu nekk maître assistant faculté médecine pharmacie itam ko noonu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daat ki bind ci CAMES 2009 ba février 2019 nekk médecin bi nga xamante ne nii moo yor lépp jëm ci service bi nga xam ne moo yor wàllu maladie infectieuse ak tropicale bu centre hospitalier bu université bu Fann bu Ndakaaru septembre mu nekk maître conférencier ci CAMES octobre mu nekk professeur titulaire maladie infectieuse université Cheikh Anta bu Ndakaaru mars mu nekk coordonnatrice bu centre de traitement des épidémies Covid 19 bu hôpital Dalal Jàmm ci wàllum recherche clinique 2007 mu nekk médecin d'études cliniques ci ab projet bu nga xamante nii. ci teetu rek lu ñeel wàllum infection VIH2 ak cancer du col de l'utérus 2009 2019 ba 2022 mu nekk chef de projet Sénégal lu ñeel wàllum étude cohorte Sen B le cure fonctionnel du virus l'hépatite B au Sénégal 2020 co-investigateur étude évaluation de la présentation clinique et de l'évolution des cas d'infection par le coronavirus SARS-CoV-2 et étude imbriquée multicentrique ouverte randomisée adaptative waaye tamit du jëm ci wàllum efficacité tolérance un traitement patient adulte ñi nga xamante ne ni hospitalisé nañ leen lu ñeel wàllum Covid 19 fii ci réewum Sénégal ci wàllum santé publique nag bokk ci société africaine pathologie infectieuse SAPI depuis atum 2009 nekk membre société sénégalaise de pathologie infectieuse ci atum 2009. waaye itamit membre société pathologie infectieuse en langue française ci atum 2011 def ay publication yu bëri atum 2015 ba 2020 jël ngeen jëf kon mbokk yi yéen a ko gisandoo mi ngi noonu professeur Louise Fortes lay daal di wuyoo nekk na koo xamante ni ni ko jàngat bi waxee ci wàllu CV biographie am na donc jaar-jaar bu leer boo xamante ni moom ngeen dégg ci moom. sans plus tarder dañu bëgg introduir ko moom mu nuyoo ak téléspectateurs yi bu ko defee mu wax tey jii nii ci li ñu fas yéene waxtaanee ak moom. laata mu janoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di suñuy chroniqueur consultant pour le grand débat police santé professeur ñi ngi lay nuyu dalal la te di la massaw maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu tamit suñu mbokku téléspectateurs yi. Mhm. tey ñi ngi la invité yow yaay suñu gan invité du mois police santé d'août euh, tem ak li ñu fas yéene proposé en jàpp ñu bàyyi la tant que professeur nga defal ñu ci jàngat. ginnaaw exposé bi ñu ñëw ak euh, li nga xamante ni mooy suñu chroniqueur yi. merci euh, jërëjëf maa ngi nuyu suñu téléspectateurs yi nuyu tamit euh, suñu experts yi nekk fii tey ci plateau bi donc ñu waxtaanee feebaru Covid 19. ci présentation bi mu leen defal fa yéene waxtaanee wu rappeler un peu feebar bi mooy lan ak situation bi épidémie bi au niveau du Sénégal nan la nan la demee ak yan matuwaay lañ ci teg. pour mën koo xeex feebaru Covid 19 buñ ci ñëwaatee euh, doomu jàngoro bi nga xam ne ñu ngi ko euh, muy feeñ euh, li ñuy wax dëkk Chine le 9 janvier 2020 mu nekk doomu jàngoro bu nga xam ne bokk na ak yeneen doomu jàngoro li ñuy wax coronavirus. Euh, léegi lu tax ñuy wax ngeen dégg ñuy wax Covid 19 Covid 19 parce que coronavirus ak 2019 la ñu la feebar bi feeñ mu nekk feebar bu nga xam ne kenn xam ko bu yàgg ba moom la ñuy wax maladie émergente parce que feebar bu bees la. Euh, comme ni ma ko waxee sànq rek euh, doomu jàngoro bi bokk na ak yeneen doomu jàngoro am na yeneen souche coronavirus si souche coronavirus yi nag virus yi am na ñett yi nga xam ne dañuy indi feebar bu graaw euh, li ñuy wax euh, SARS-CoV-1 MERS-CoV te léegi doomu jàngoro bii nga xam ne moom moo responsable infection COVID-19 moom la ñuy wax SARS-CoV-2 euh, fan yi ñu passé dégg nañ ñu bëri ñuy wax waxu variant variant loolu mooy lan en fait virus bi bu nekkee ci sa yaram day multiplier wu day jur yeneen virus mais parfois day dem ba juum juum yi muy def nag day tax day am coppite par rapport ak virus bi nga xam ne moom la ñu njëkk gis ak yeneen virus yi nga xam ne moom mooy ñëw euh, gis nañ dégg ngeen temps yi ñuy wax waxu virus delta euh, moom mooy virus bi nga xam ne ne que Inde lañ ko njëkk euh, foofu lañ ko njëkk gis mhm. coppite yooyu lan lay def ci virus bi day tax parfois virus bi mën na gën a gaaw a wàlle day tax parfois virus bi vaccin yi mën na ci bañ a efficace mais day tax tamit parfois peut-être virus bi sax mën nañ dem ba de buñ koy tester duñ ko gis euh, euh, virus bi nan lay wàllee euh, xam nañ ko nit ki suy sëqat buy sëqat buy wax buy tichooli doomu jàngoro bi day nekk ci environnement bi fi mu fi mu nekk yëpp day am doomu jàngoro bi donc nit ki bu nekkee ci wetam loolu moo tax ñuy wax distanciation sociale nga xam ne au moins un mètre au moins bu nit ki sëqatee wala euh, ticholiwee du ko du ko laal mm-hmm. mais également euh, doomu jàngoro itam booy sëqat booy ticholi wala doomu jàngoro bu nekkee ci sa loxo lépp lu nga xam ne laal nga ko yow nga ñëw laalaat ko def ko ci sa bakken wala ci sa bët wala ci sa gémmiñ euh, doomu jàngoro bi tamit mën na Euh, ñëw euh, ci sa dugg ci sa ci ci sa yaram. Euh, pour Sénégal dinañ ñëwaat bu ci kanamee ci épidémie bi au niveau du Sénégal ak yeneen données suñu ñëwaatee ci feebar bi gis nañ ne doomu jàngoro bi benn virus la bu tàmbalee Chine su duggee ci sa yaram par ci bakken lay duggee gémmiñ ak ak bët. Euh, euh, doomu jàngoro bi gis nañ tamit dafay am ay coppite doomu jàngoro bi bu duggee que ci bakken ci gémmiñ lay jaar surtout si bakken euh, bu ñëwee ci yaram bi yan fax màndarga mooy tax nga xam ne da nga amee feebar bi feebar bu nga xam ne feebaru dënn lay njëkk laal mooy ñu ñuy wax maladie respiratoire yan signe nit ki bu nekkee ak bu amee feebar bi am na li ñuy wax forme yi nga xam ne dafa simple ak forme yi nga xam ne dafa garaaw forme simple nit ki boppam dina metti yaramam dina tàng yaramam dina metti tamit euh, dina parfois dina lox dina ñàkk yaram bi dina seetlu ne que am problème pour lekk euh, gis nañ ne tamit da ngay jékki-jékki doo xeeñati bu doo xeeñati sa gémmiñ tamit du amati goût li ñuy wax anosmie ak agasie mais tamit feebar bu demee ba garaaw parfois mën na am problème pour problème mu respiration foog naa ne bu ñuy wax wax feebaru Covid 19 li ñu gën a jaaxal mooy forme grave yi ñi nga xam ne doomu jàngoro bi day dem ba jàpp seen xëtër ba nga xam ne du ñu mën a nooyi bu ñu jógee fu ñu toog sax du ñu mën a respirer bu baax loolu la ñuy wax syndrome de détresse respiratoire aiguë. mooy nit ki nga xam ne day fatt nit ki nga xam ne day am problème bu ñu xoolee taux oxygène bi nekk ci deretam dañuy gis ne ne taux oxygène bi dafa wàcc ba quatre-vingt-dix pour cent wala même moins mais euh, bu ñu demee ba xam ñenn xam nañu feebar bu bees la mais finalement feebaru Covid 19 du xëtër rek lay laal dina laal gis nañ ne que parfois dina dem ba boucher. veine yi entraîne lu ñuy wax thrombose dina laal également rein bi mën na laal euh, da ngay gis nga xam ne day am feebar bi am muy waccu biir bi di daw gis nañ ñi nga xam ne tamit dañuy amee feebar bi def AVC feebar bi tamit day laal xol bi donc si poumon yi lay commencé mais mën na laal organes yëpp yi nekk ci euh, yaram bi ci fukki nit yi nga xam ne dañoo amee euh, feebaru Covid 19 ñaar ci ñoom. dina dina dem ba nga xam ne day graaw dañuy soxla parfois réanimation moom la ñuy gis forme sévère ak forme de euh, réanimation bi feebar bi kañ lay gën a graaw nit ki bu tàmbalee feebar bi ci seetlu nañ ne que bu feebar bi defee juróom euh, ñaari fan euh, jàpp fukki fan la feebar bi di commencé di graaw nit ki di am problème pour am problème de respiration moom la ñu seetlu ne feebar bi ci lay ci lay graaw bu ñu gisee ne feebar bi kon gis nañ ne am na ñi nga xam ne dañuy am comme genre bugguma sax tudd grippe parce que fu mu ne nii moom buggutuma ñuy wax ko grippe moom euh, nit ki daal day day am day sot day sëqat mais am na ñi nga xam ne feebar bu demee ba grave dañuy am problème pour respirer te nee nañ problème respiration bi ci feebar bu bu demee ba daw ci deuxième semaine bi la ñu gis ne malade bi ci lay commencé di grave nan la ñuy def pour xam nit ki ndax am na feebar bi wala amul feebar bi ci ñaar laay euh, euh, insister nit ki nga xam ne dañoo yaakaar ne daam am feebaru Covid 19 doomu jàngoro bi la ñuy jéem a xool ci yaram bi donc li ñuy wax dañuy jël benn euh, genre coton tige. dañ koy dugal ci bakken bi wala ñu dugal ko ci gorge bi moom la ñuy jël ñu xool ndax doomu jàngoro bi mi ngi ci euh, yaram bi euh, mooy li ñuy wax RT-PCR euh, mais léegi tamit gis nañ li ñuy wax lañu test antigénique mooy li ngeen gis nii mu mel ni xam na ñun ñëpp xam nañ sibiru xam nañ ne léegi nit ki bu amee feebaru si bi du mun nga dem hôpital ñu xoolal la mais bii du ci deret bi la ñuy xool mais euh, li ñu jëlee ci bakken bi moom la ñuy xool foofu te ci fi nga toog noonu ci diiru 15 minutes dinañ la wax ndax am nga feebar bi wala amoo feebar bi mais bu ñu buggee test bi mu mun a wax dëgg ndax am nga ko wala ameewu ko nit ñi dañoo war a teel a dem ci hôpital yi mm. parce que ci diiru cinq jours mm-hmm. la test bi mën a wax véritablement ndax am nga feebar bi wala amee woo feebar bi donc c'est-à-dire que tey ñaari fan gis nga loo yëg sa yaram rek demal ci hôpital bi ñu mën a xam ndax moom la wala du moom. Euh, léegi ñu dem ci épidémie bi ci wàllu Sénégal euh, Sénégal am na kuréel bu nga xam ne ne que moom la ñuy wax CNGE euh, comité nationale de gestion des épidémies au niveau stratégique mais après niveau stratégique yi am na yeneen kuréel par exemple mën naa ci citer COS centre des opérations d'urgence sanitaire yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di gëstu euh, nan la ñuy def pour xeex euh, feebar bi mais xool leen courbe bi instant yi fu ñu toll nii depuis euh, au mois de juillet gis nañ ne xool leen cas bi yi ñoo gën a bëri li ñu amoon ci première vague ak li ñu am ci Euh, deuxième vague te euh, diapositive bi ci topp firndeel na ko xool leen ci euh, même bi ñu nekkee woon deuxième vague peut-être à peu près ay 7000 cas lañ doon am par mois mais ci mois de novembre juillet bi kese gis nañ ne au niveau euh, du euh, euh, Sénégal am nañ mille cas. presque un tiers des cas yi ñu gis ci Sénégal ci mois de juillet bi Euh, lañ ko gis te xam nañ lu tax moom laa doon wax ci début bi euh, gis nañ ne euh, docteur Marie Khemesse def na communiqué pour wax ne ne que seetlu nañ ne ci fukki nit ñu ko am soixante-dix-sept yi juróom-ñaar yi feebaru feebar bi virus delta moo ko tey nee nee naa leen sànq ci début bi virus delta wàllem moo gën a gaaw donc bu dee wàllem moo gën a gaaw mooy wane lu tax cas yi gën a bëri instant yi ne mais tamit li ñu gën a jaaxal du nombre de cas yi parce que cas yi mën na bëri. mais ni nombre de décès yi tamit gis nañu tamit nombre de décès yi gën na bëri par exemple suñu xoolee rek ci euh, semaine bële passé presque am nañ li toll na ci cent décès mooy quatre-vingt-dix-neuf décès la ñu am ci semaine bële passé alors que euh, bu ñu nekkee woon mois de mars ci première vague bi euh, décès yi ci ñaar fukk rek la doon yem mais fu mu nii fi ñu toll nii troisième vague mën naa wax ne daal situation bi moom xaw na jaaxal ñu bëri moom laa wax une situation alarmante parce que gis nañ ne euh, li nga xam ne moom la ñu rafetlu nit ñi tam ñu ngi testé parce que plus de 5000 ñu testé loolu lu lu baax la parfois 3000 2000 euh, gis nañ ne tamit nombre de cas yi leen rek comme ni ma waxoon rek moom laa wone waat fii en nombre de cas yi ci juillet bi tamit presque 20000 cas la ñu am ci mois de juillet bi nombre de cas yi nombre de décès yi na prévalence également ñi nga xam ne dañuy feebar mais du ko jëlee Euh, gis nañ ne tamit taux de positivité bëri na bu yàgg ba première vague bi pour cent léegi ñu ngi ci 28 pour cent mais également gis nañ ne instant yi au niveau des structures sanitaire am na li ñuy wax saturation presque léegi. Euh, nit ñi mën nañ woote mën nañ xool malade yi am na nga xam ne dañuy toog parfois seen kër yi dañuy soxla place te parfois dañuy am problème euh, pour am place lan la ñu war a def fu mu ne ni ci wàllum troisième vague bi mën naa wax si ñaar ñetti fànn lan la dépistage parce que lépp ci wàllu étude épidémie mooy il faut ñu xam cas yi fan la ñu nekk ak nan lañ leen di gérer bu ñu xamee cas yi euh, lan la ñu war a def mooy ñu jël leen en charge après li moom la ñuy wàgg di yàgg di wax rek fagaru mm-hmm. moo gën faju faju donc ci loolu tamit la ñuy gën a insister ñun bu ñu sañoon malade duñ ko am. parce que dañuy bëgg ñu insister ci prévention bi. Euh, ci wàllu dépistage bi lan la ñu war a mën a def au niveau en tout cas politique yi gis nañ ne léegi test de diagnostic rapide yi ñëw na ci hôpitaux yi mooy li nga xam ne moom la ñuy lu bu baax. ñun urgence léegi malade bu ñëwee balaa muy dem xam nañ ndax feebaru Covid la wala du Covid yi parce que test de diagnostic rapide yi ñu ngi ñëw en cas ñu yaakaar ne test de diagnostic yi ñu jot a bi ñu jot a am. Mm-hmm. am nañ ñu ngi commandé waat yeneen nga xam ne du ñu mës am am rupture parce que bu ñu delluwaatee ci avant du ñu xam ñuy xaar PCR dina métti mais également maa ngi réfléchir même ci yeneen dëkk yi parfois ci pharmacie boo bëggee def test mën nga ko dem jënd ci pharmacie yi pour ñu mën a juste nit ki nga xam ne bëgg na xam parce que ki nga xam ne dënn ba structure sanitaire pour war a xam kooku déjà responsable la Mm. pour xam ndax am naa ko wala ameewu ko donc ñuy lu test de diagnostic rapide yi mais également décentraliser PCR yi parce que feebar bi euh, gis nañ ne par exemple cas suspect yi bu ñu defee PCR toujours au niveau pour pour cas yi institut Pasteur la te gis mm. nañ ne instant yi am na yenn hôpitaux yi nga xam ne mm, euh, mun nañ def test aux voyageurs pour pourquoi léegi du ñu jéem a réfléchir xam naa tamit li tax muy gën a métti parce que il faut ñu centraliser données yi lan la ñu war a def parce que am nañ cas léegi nañ vraiment ñu réfléchir nan la ñuy def pour augmenter nombre de yi lal yi nag du faj malaat yi li leen di faj mooy oxygène bi mm-hmm. parce que lépp képp ki nga xam ne gis nañ nombre de yi li nga xam ne moo ñu jaaxal mooy malade yi nga xam ne dañoo grave ki nga xam ne mu ngi dem dafa problème mu lekk mun na toog këram mm-hmm. ñu gérer ko mais ñun li nga xam ne moom moo ñu soxal mooy ki nga xam ne dafa soxla oxygène donc il faut ñu réfléchir mm-hmm. nan la ñuy def pour am yeneen CTE maa ngi wax est-ce que ñun Sénégal amuñu possibilité dem ci benn stade tàdd amuñu possibilité dem ci benn hangar teg fa ay lal teg fa oxygène pour mën a oxygéner nit ñi ak équipement bi nga xam ne moom moo ci war kon ñàkk bi rek du doy il faut ñu continuer di utiliser mesure barrières yi mm-hmm. mesure barrières yi moom mënuñu ko bàyyi nañ toog suñu kër nañ bañ a laal suñu kanam yi nañ takk masque yi nañ raxas suñu loxo nañ éviter distanciation bi euh, et également nañ nettoyer régulièrement euh, euh, surface yi en tout cas loolu laa bëggoon partager ak yéen Euh, gis nañ ne épidémie bi bu ñu demee day jékki-jékki mu yokk jékki-jékki mu wàññi li nga xam ne moo ñu gën a jaaxal moom mooy forme sévère form forme grave parce que ñoom ñooy ñoom ñooy faatu ñoom ñooy soxla oxygène situation bi ñu dugg ni troisième vague bi gis nañ ne cas yi yokk na décès yi tamit yokk na ñu ñaaxaat population bi ci respect des mesures barrières ñaaxaat leen ci vaccination bi te léegi tamit politique yi peut-être il faut ñu dolli il faut impérativement ñu jéem a dolli yeneen action pour ñu mën a Euh, en tout cas génn ci feebaru Covid 19 terminé di jaajë jaajëfal personnel médical yépp yi nga xam ne ñu ngi taxaw au front du ñu daw du ñu xof. dinañ jël en charge maladie mais nañu politique yi jàppale. mais également population bi jàppale ñu sans la population mënuñu dem mënuñu xeex euh, feebar bi parce que bu ngeen xam bu ngeen ko xamul maa ngi leen koy fàttali foog ne ni dañoo nekk ci li ñuy wax ci guerre. sanitaire yàlla nañu yàlla may ñu am ci ndam. amiin jëf mi ngi noonu professeur euh, Louise Fortes nekk infectiologue épidémiologiste nekk it koo xamante nii mooy coordonnateur.